ànd ay rakam gin bu yof caatu yof gin si yow laay njëkkee lay bëggee di la ziar. ziar naa la Babacar. am nga combat ren. amaguma combat de. lu tax. gars yi laay xaar rek bëgg combat bu baax rek. koo bëgg. man ainsi eh, nii man xale laa combat bu ñu ma rek bu bu baax man pare naa man waaw man gars yi rek laay déglu. écurie Yoff saison bi jeex 2018 2019 ñu ne yéenay premier écurie bi sunu làmb door bi ngeen gagné ko écurie boo xam ne bu mu juddoo mën nañ ne yàggul ci li ñu xam boog ñun loolu lu mu def si yéen. waaw loolu kontaan rek ba pare di doxe ndigal rek ku si mel ni suñu mag Malick ñaa di ñu teg si kan ñuy tegu si code bi tamit nda xale moom am na si loo xamante ni boo si nekkee da gëm ni mën dara da jàng te ñun si yoon nekk moo tax tey lii ñu am ni gëm nañ ni déwén dañ ko bëgg a jëlaat encore comme niñ ko jëlewaat parce que gëm-gëm googu moo nekk si ñun te du dara billaahi wallaahi taalaahi mais liggéey bi la rek loo mën a gis tamit liggéey bi la rek tal insi nii liggéey bi ñuy liggéeyaan moo gën a métti boo ñu xoolee da ngay xam ne ñii pare nañ ñu fàttali ne moom daan daaw tonnerre bu écrit Ndakaaru la mujj daan daaw saison bii ñu passé kii Pape Thiam bu Géejawaay daan par recours Caatu ngeen jël sunu lamb door bi écrit bi maanaam gën a baax le taxawaay daaw ci saison bi jeex en tant que xale jeune loolu lu muy war a def ci yéen en tant que ay jeune waaw sant yàlla rek ñun loolu jaaxaluñu de parce que ay talent moo ne yoof booy bu ñu bëree rek chaque chaque année ñooy jël pay incha allah yeah. chaque année jël pay incha allah bu dee booy ñu ngi bëri rek chaque année ñooy jël pay yow am nga combat ren oui am naa si combat maax bébé julle ñooy bëri bébé julle de wax nga dëgg ak kan jéy seen maax bébé julle waa jéy ko tëgg waa solo léegi nag kii mooy seen mag Malick ñaa moom itam gëj nañ koo gis mu bëre waaye loo si mën a dégg daal mbër waadal ndax yaakaar naa benn defet la si làmb te Ama Baldé moo ko ko teg mbër maa ngi lay nuyu di la ziar nga ànd ak say rakk tey ñu taxaw nii wër la yëg-yëg boobu ak sa digganteeg ñoom loo ma ciy wax. Eh, waaw sëñ Babacar maa lay nuyu di la fay di la dalal jàmm si dëkk bi xoolal boo gesoo ne di nga gis booy bu sol ci seetu Malick Niang gis nga fii ak Yoff benn la si na bañ ma ñaari dëkk yi amul am ma xaja seen ñaari bayam ñi sumay rakk lañ nekk ay rakk joxe cër tamit quoi ñoom ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp ñoom ñëpp ñu yaru lañ vraiment neex na ñoo jiite am na ñoo xam ne boo leen jiitoon ñu ngi yor paaka di ko jam sa ginnaaw wala ñuy xam nga dóor say tànk mais vraiment ñi joxe cër lañ affaire bi ñu jël nii man bettuma bi ñu defee réunion daaw avant saison bi di tijji wax naa leen ko bu ngeen boolee seen boppa mu nekk benn di ngeen gis lu leen di jàppale te du ngeen ko gis dina am leen jàppale te yéen mënu leen kaa gis eh, bu leen di xiiroo xa du neex quoi du neex suñu écrit waaw. yow en tant que seen mag ñu jël suñu làmb door bi te yow bëre woo kon maanaam ginnaaw Malick ñaa am na relève bu fi nekk bu wóor. yu ay yu bëri ay roi des arènes yu bëri yu garaw yi <laughs> kay ay roi lañ ay roi yu taxaw noonu waaw xam naa ne boo leen boo leen roi des arènes man sama xel day dal waaw. le 21 nu ngeen di ñëwee pour jël lu mel noonu ñu leen war a jox. waaw le 21 di invité ñëpp rek nga xamante ni lamb moom yombul quoi bu liggéey moo koy am waxuma yeneen écurie yi liggéeyuñu mais écurie bu liggéey dëgg moo koy am quoi waaw Yoff yëpp ñu invité ñëpp rek kilifa yi ñu am yëpp ñu ñëw fekkee affaire bi you know bis bu rëy la kaw si ñun lu ñu amoon dañ ko siy def di ñaanal suñu booy bii di bëre tamit samedi le 21 moom it yàlla may ndam booy ba yaru la moom tamit you know ñaan yëpp jàmm ba tey gisuñu la nga bëri wàcc ci làmb ji Malick daa bàyyi bëre wala non bëre moom mosuguma kaa bàyyeegum bis ma koy bàyyi moom dinaa woo ñëpp ne leen sa xel ci kan la man instant bi mbër bu mbër bu dëgër rek mbër bu baax rek bu ñëw baax na. mais sa revanche ak Sa Thiès mënta nekkaat. ah ba tey loolu mën naa nekk sans moom rek mais est ce que xelam xelam moom am xelam may na ko pour mu jël ko. dina am xelu jël. ah. maanaam du am xel pour jël lépp nga wax. <laughs> ma na ah, laaj man pare naa kay moom kay moom moo nekk si leneen. moom ma doon laaj di ma sonal si di ma rek di ma rek. pare nga pour jëflante Garga. bañ a pare pare naa ba wallaahi. kontaan ci yow. maa la gën a kontaan Babacar jaajëf. leeram taas ñu si barkeem maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ngor gi yëpp maa leen di nuyu. Uh-huh. ngay xale di espoir fii ci ngor ci làmb jëm si combat samedi ñu ñëw gis tey say mbokk yëpp génn say magu mbër ñëw même ñi nga dëkkandool sax ci gox bi muy ñoom maalik ñaa ay gin ak caatu uh, uh, yof ak ñoom ñëpp loolu en tant que xale loolu lu muy def si yow. waa sant yàlla dinañ ko gërëmee ñoom it parce que dañoo baax rek suñuy grand frère lañ bi combat bi taxawee ba léegi Malick ñaa nelawul. xam mu ngi bàyyi yitteem di ñëw samay entraînement di ma conseil jënd nit waxi noppi ñoom caatu yoof suñuy dëkkandoo lañ lamba du neex ba ngorax yoof bëri seen biir kon ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi geste bi lañu def rek parce que lii moo leen war daal maa ngi di sant bu baax ci teewaay bi ñoom mbëri yoof yëpp ñi teewul tamit maa ngi di comprendre di sant ñëpp waaw maa ngi di sant wér foo toll fi nekk nii sa combat ay quelques jours ci des est-ce que xam nga wax ju bëri feesalul biir man xale tuuti laa ku ma xool daaw xool ma ren di nga xam ndax pare naa wala parew ma ndax maa ngi entraîné wax ju bari la boo sumee koo ñu xam si dara boo fi nekk di wax dara wax ju bari bés ba bu ñu sumee koo koo doole yaa naam dam mais xeeru ngor bu ñu bàyyee xel ci booy yëmbal nee na du la may dara foo taxaw bu fekk la fa làmb ji ci xeex wala ci bëre lan ngay wax ak waa ngor ak ñi lay xaar samedi. waaw moom moom bu ko neexee mu wax lu ko neex parce que amaana am na lu mu yaakaar ba wax loolu mais man tout tànk laa damaa liggéey ba si fii ay caaxaan andiwu ma fi te di nelaw tamit andiwu ma fi. kon du ma liggéey ba toll fii boo yëmbal di ma yàqal dara si li may liggéey waa Ngor dañ maa yaakaar fukki penc yeeg ñaari lébu dañ maa yaakaar dafa am sas bu nekk si man waa Ngor gépp gisoo leen ñëpp a génn xale yeex mag ñeex ndaw ñu ñëpp lii rek sas la si man rafet dool yi may bëreeg drapeau boo xamante ne ki ko ki ñu ko tuddee sama ndijaay la kon sama bakken laa si teg na xam loolu sama kenn laa si teg damay dee rek mais damay am dam incha allah. waaw gis nañu face à face bi biir Ngor la booy xeeru ngor dafay ëpp doole booy yëmbal mais nee nañ làmb ji Demba Diop la loolu ñu leen teg korog Iba Mar loolu ñu leen teg korog dañ koy waajalaat pour jëm Iba Mar ndax korog seen biir kër lan la fekk buñ ko jàppee ci gàttal te nee nga sa nijaay lañ tuddee drapeau bi ndax loolu du diis ci yow waaw ñoom teewuñu kon amuñu dara lu leen di wax si loolu waaw amaana mënoon nañ ñëw rafetal ko parce que dañu fay fay ko man bu ñu tëggoon signature yi biir këram barki alxuraan damay dem parce que gëm-gëm bi ma am mooy ji bu doon biir néegam dama koy daan donc amalu may xal ñaar si noonu Iba Mar la wala man Iba Mar na ma daf may muslu stade Iba Mar daf may muslu su ma fa duggee si fecc maa koy neexal si bëre maa koy neexal si xeex maa koy neexal te daan maa koy def waa déglu waa galaay galaay yaa ngi bu ma la laajee xeeru ngor xam nga wax nga sa bopp waa nit ku nekk sa bopp nga xam mais est-ce que ki xam nga ko parce que adversaire nga am de waaw am na lu ma xam si moom ndax nit kenn mënu koo xam ba jeexal ko am na lu ñu xam si moom si làmb parce que sànni nañ ay quelques combats am amaana tamit ñun ni ñu si daanee quelques combats moom noonu si daan suñu quelques combats mais quelques combats yi ñu si daan noonu am na lu ñu si def loo xamante ne gëm nañ ne bu bees ba bu ñu ñëwee li ñu entraîné dañuy may ndam facilement waaw parce que ay tout tànk lañ te entraîné nañ 4 mois donc waruñu fi ñëw ay boo yëmbal si benn une minute deux mu ñuy taadeel dañ koy jël falaxe ko dox suñu dox mais su ma la laajee falaxe nga wax falaxe moom loo man lay doon xam naa ne loo xam ne yaa ko lool mais soo ko xoolee ne nga xool nga ay quelques combats techniquement si côté bëri technicité soo ko xoolee si qualité bëri yéen ñaar kan moo ko ëpp leen champion la ndax bëri naa ñoo xamante ne bëriwu ma ñoom moo ma jiitu si làmb moo ma ëpp ay sama liggéey moo ma andi si moom ay caaxaan andiwu ma si moom dama daan ay champion ba ñëw si moom donc du moom laay xel ñaar. ci ñaw ñëwagoo de ci bëre qualité bëre. moom laay yi ma daan ñoo daa ko boo yëmbal su dee mënu ma ko daan bay boo ma tekki sama ngeem. yéen ñaar ku dàq bëri techniquement. barke alxuraan. billaahi laay wadde maa moom bu ñu tegaloon géewal ñu billaahi mbëppat bëri simple ma am 10 do am benn. foo teg loolu. dama koo dàq bëri. xeeru ngor may leen ñu xeeru ngor sa biir di wax say rek say mag say dëkkandoo dina yuuxu ndax xam nga ni ñii samedi incha allah ca kaw la ñuy yem yaay wàcc ci te boo yëmbal Babacar wax na ko. bàyyil xel ni ki ngay bëreel mbërëntaan la sañ-sañ bi foo ko jëlee ba mel ni ku xeeb ki ngay bëreel non xeebu ko jox naa ko cër parce que sama adversaire la respecté naa ko su ma ko respecté wul woon du ma dagg sama yitte dem di entraîné di dem di ñaanlu respecté naa ko ba fii cër yem mais dari tamit Babacar mii fekk na ma Bambey ma bëre fa loo xamante ne ba nii gars yi ñoo téye seen gémmañ estat Iba Mar sama combat passé ma bàcc séerage favori lañ ko joxoon si bëre dama koo bëriloo ba muy yuut kon du boo yëmbal laay xalaat si kedo combat bi day gaaw. moom lay dépendre. mbasa mbasa waay gars yi. ay lébu lañu. ay lébu lañu. ay lébu lañu. ay lébu lañu. mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa mbasa yëmbal xam nañu la li ci des moom wàllug teen la ca pind ba lay yem bu samdee bu soobee suñu borom dinañ xool fan la war a mu jëkkay bëtëm Babacar li ma koy wax mooy du gaal a koy gunge du ay joow du ay liboy takk ngeen mu ànd moom moo koy yëmbal rekee des ci digg géew bi ah xeeru baat da ngaa xeer yi bari boo yëmbal nee na faalewul ros de boo yëmbal nee na faalewul ros waaw man dépassé naa foofu ndax onze combats la am kenn mësul dugg ci jàppale man ki say bëre ñaata donc kon boo ne ay gars yi si ginnaaw dañuy yem loolu xam naa ko bu yàgg man li ma gëm laay wax di wax sama grand Malick Niang mu ngi may lancer message bu am solo Ngor Wakaam Yoof na autorité yëpp génn jàppale ñu parce que lii bésu lébuy la bésu waa tànk la Ngor Wakaam Yoof na ñëw ñëpp ñëpp ñëw jàpp si ñu ngi siy jàpp waaye lu ñu si jàpp doyul ndax combat yi dafa diis sama rak sama doomu nday fëgala bu Ngor daf siy bëre ñaari doomu Ngor xam dañu siy bëree te loolu noonu dafa doon événement si biir Ngor ñëpp di ko waajal donc dañu autorité jàppale. mu jëm mooy promoteur bi leen tëgg xale la bi mooy premier muy dugg ci làmb di tëgg combat lutte avec frappe lan ngeen ko mën a jàppalee ci samedi ci côté mobilisation moom côté production. waa xanaa boo yëmbal. mais man li ma warul wax petit def naa ko ndax li ma war a jënd si ay billets yëpp jënd naa ko. ñaata bolok nga jënd. jënd naa 4 bolok xam nga kon ragaluma fi ma jëm te damay dolli war yeneen ñaar incha allahu rabbi kon wàllu mobilisation aw ma si xel ñaar moom laay soññ parce que ay tout tànk lañ dafa am fu ñu jugee am fu ñu ñëw ba yegg si fii tey promoteur bi wóoluñ joñu xaalisam. donc dañu war a wane loo xam bu ñu fi jógee gars tëggaat ñu làmb gën a soxaleku parce que day door a yëg si xama di wax ne nag ko gars yi jàppale parce mu ngi door a ñëw ndakaaru xam mais di wax ne tamit benn message maire Ngor Amadou Gueye Ati li war ci combat bi yëpp mu ngi koy def sama papa Karim Ndiaye li war ci combat bi yëpp mu ngi koy def sama papa Boris li war ci combat bi mu ngi koy def borom suma assistance muy suma ndijaay docteur Niang moom li ma defal mënu ma koo wax en tout cas Samb responsable euh, politique fii si Ngor xam nga li ma defal mënu ma koo wax mais sama grand Malick Niang encore une fois li ma defal mënu ma koo wax ndax dafa dagg ay ñëw nekk si entraînement yi di ma jàppale xeeru ngor sama turandoo li ma defal mënu ma koo wax coach si père Ibou sama ndijaay la père Sindooy xama ñoom préfet xama non damay lim sama ndijaay jaraaf Saliou Samba chef de village sama doom la kooku sama doom boobu la bu baax fi ñu leen daan nuyoo tey ñu ngi fi yëmbal yëmbal nag li fi indi mooy open press nga xam ne moom mooy booy yëmbal war a bëre ak nga ne moom mooy xeeru ngor combat bi nag yàggatul ñu ngi fii nga ma ànd ak nga xam ne moom mooy Moussa Fall ci caméra bi mbokki Leewtoo ñuy suivre yëmbal a ngi waaye yëmbal a ngi écrit baa ngi bi war a ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo koy ëmb yóbbu ko stade waaye gis nañ fi champion yu bëri Moussa Fall ci kanam tuuti dañ leen lépp loo xam ne moo fi xew ci open presse bi nga xam ne moom la Boy Yeumbeul di def ba ci kanam jërëjëf lii mooy yoon sunu rakk la di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam ci barke yonente bi waaw. yow foo ñu gisee xam ne pare nañu soo ñu gisee xam ne pare nañu waaw te soreetul yàlla ci yàlla yóbbu ak salaam ci barke yonente bi di ngeen gisaat benn Alioune bu bees la 29 incha allahu rabi waaw maa ngi ñaan yàlla nag dama ñëpp ñaanal ci combat bi ma jëm yàlla baax na jaajëf. ànd naa confiance coach ko topp di ko wax na muy def sant yàlla bu baax di sant waa yëmbal yëpp doomu yëmbal bépp koo xam na nga yeewoo te xam ne mbër bi bës bi la am muy bésam te bés bi nekk na si bés yi nga xam ne moom na ñu gën a moom la ñu gën a ponk parce que dañ seen liggéey moom sérieux tey jii lii rek mën na leen ko yéen a ñëwal seen bopp yéen a gisal seen bopp li may ñaax waa yëmbal daal ñun ay acteur développeur lañu dañu bëgg fii champion bu génn ta am na ay champion boo xool si nga Babacar Diallo ku tudd lamb tudd Babacar Diallo ñu ñàkkuñu mbër jàppale la ñu ñàkk nañu autorité yi jàppale mbër yi mbër doo ko jàppale di wut tur da nga def te yàlla te kenn ko yéeg. waaw mais sa day xeex wala day bëre lamb lu mu laaj rek nañ ko def bu dee xeex pare nañ si bu dee bëre pare si mooy bu xeex du xeex xam na ne du xeex yàlla xam na ne du xeex. daal wóolu nga ko. waaw mais yaa ñëw si bopp gis nga li mu nekk am na loo xam ne duñ ko war a def. kuy dem kër sa arme da nga koy denc bu ñëwee kër ñu xam ne pare nañu lépp si tout les côtés fay naa la. waa tey open press la ngeen sañ ba jekk fii fees dell ak i nit te lamba ja ana loo nar. waaw xanaa di nuyu waa Yambal di nuyu Sénégal yëpp parce que tey boo gisee ñu ñëw fii rek dafa am ku ko waral. muy boo yëmbal moo ñu jaral tey jii ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw teewal ko ci open press am bii parce que nekk na xale ba xale bu yaru xale bu gëm boppam xale bu bëgg lu muy def am engagement ak détermination moo tax tey ñu bàyyi suñu lépp ñëw ànd ak moom soutenir ko di ñaan suñu borom mayaat ko ndam nam ko ko maye woon. lama ji dafa njoore beneen facette. waaw sëñ bi nuyu nañ fay nañu imaam. waaw mais lan moo waral teewaay bi. waaw mais tey dafa war tey sunu sunu rakk sunu doom sunu jabaat mooy moo atee ay open press di booy yëmbal di mënu yëmbal ñu dëkk yëmbal kon loolu dafa jaar rek pour ñu ñëw tey tey du jouru lamb ji tey moom open press la ngeen ñëw waa jouru lamb ji loo leen nar. waaw xam nga ko xam booy yëmbal xam xam xam macha allah ambiance am ci lamb yëmbal li ñu bëgg rek mooy tey stade bi ñu bëgg supporter yëpp dëkk yëmbal loolu la ñu dañu yéene incha allah ci kàttan yàlla loolu lañ mooy suñu yéene di ko ñaanal yàlla yàlla may ko jaa ngi fi ñoom Aliou Seye Junior ñi nga xam ne ñoo ko ay magam di ay di ay di ay conseil nekk ci lamb ji yàgg tey macha allah loolu bu amee li day dañuy sant sant sama ñaari waajur bu wér di sant sama ñaari waajur bu wér di sant sama sëriñ Seydi Aboubacar si yàlla na yàlla yokki leeram te ci barkeem di sant sama sëriñu bopp maam Asi bu Seydi Jëmil di wax ne jërëjëfe Ndoye Sy jërëjëfe Ndoye Sy Ndoye Sy yàlla na fi yàgg te wér ak képp ku ko wax waaw boo yëmbal dégg nañ li nga wax ak say jege ñaale ak say dëkkandoo li ñuy njëkkee mooy xeeru ngor nee na combat bi lépp ci mystique nga ko teg ba fu ñu leen woo doo ñëw foo teg loolu. waaw mu leer parce que presse moo ñëw di ñu déglu di ñu seetaan kon yaakaar naa tey bu ñu fiy wax dañuy wax li nga xam ne mooy lu logique dañu signé contrat ak promoteur ñun dañu am ay kilifa parce que mënu ma imaginer boo yëmbal dëkk yëmbal xeeru ngor dëkk ngor ñu woo ma signature ngor pourquoi may dem man ngor. fi ñoom xeeru ngor di entraîné ma fay defi ci signature dama am kilifa te combat bi buñ jàppee ne ay sorxo sorxo wala mystique mooy gagné combat bi ñu ngi nax seen bopp. ñu ne ñu may tuuti ñu ànd dal waaye ngor ñoo ñu yóbbante démb ñu ne bu waa yëmbal teelul jóg bu ñëwee ci bit lañuy seetaanee combat bi te xeeru ngor nee na bu dee xeex mbaa bëre. loo ci indi benn di nga ci fekk fukk boo leen xeexee mu duma la nga daanu boo leen bëree la jàpp fu dul karaw làmb ji jeex. yëmbal ma ne ñun yëmbal lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo yaakaar fii nit mënu fi juddoo yaroo fi di doon tàppet xeeru ngor bu biir këram ma fekk ji ko waaye li ma wax sànq rek combat benn. fa fa mbëggeelam yam ci combat bi man foofu laa tàmbalee dégg naa ko nag mu takk ay rajoom di wax waaye combat bi wax gañewu ko waaye yëmbal dañ muy yónni yàkkamti ma te taxawaalu waruma combat bi sama combat la ci kàttanu borom bi laa la wax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma jàpp ko daan ko allah. lan ngay wax say jege ñaale boobu ci non jan ta nga janook caméra yi wax ak ne. nga dajale say supporters ci fair play parce que nee ñu ki tëgg làmb ji xale la ni yéen bii mooy premier journée am bi mu ñëwee xelam demul ci yàgg ku dul xeeru ngor te nee nañu foo dem dellu fa wala su bëree nit ñi mën leen a fekk si ci yéen lay jugee xeeru ngor ci préparation mistiquement physiquement fair yaakaar naa ne ku ne fair rek ne waa yëmbal te yàlla dogal na ne boo yëmbal yàlla da ko booleeg ay xale yoo xam ne xamuñu violence ndax yaree leen ci xamala wóolu seen mbër gëm ko te yaakaar ko te xam nañ ne ci biir géew bi avec Boy Yeumbeul rek léppay yomb ci kàttanu borom bi li may wax nag damay lancer message samay supporters ak ay supporters Xeeru Ngor man ak Xeeru Ngor ñooy rayante ci biir géew bi supporters yi lan lañ leen sant ñu sanca ba rafet taxaw ci kaw neexal ci kaw ma neexal ci suuf ci kàttanu borom bi loolu laay woo samay fans di ko woo ay fans Xeeru Ngor incha allahu rabbi dégg naa ko mu ne dafay feesal stade na bàyyi ba jot ci place yu mën a feesal boo yëmbal dafa am ñu nekk ci ginnaaw gis nga ko léegi ku ànd ak Modou Mbène Diop yaakaar naa doo tiit ci mobilisation ànd ak Moussa Guissé doo tiit ci mobilisation ànd ak rawatina nag waa diaspora bi ñu jëndal ma ay ticket yu bëri su ma nee waa diaspora bi jarul may lim lim naa ñëpp di sant waa yëmbal waa bursuwaay jaay prégi boo yëmbali waa def boo yëmbal waa waa Paris waa Paris maa ngi leen di waa bool bi maa ngi leen di sant mafia jaay perek bi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax gis naa li ñuy sonn ci booy yëmbal bu booy yëmbal amee komba du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg te Malal Sakho fis de Doubalès moo ngi sama ginnaaw kon yaakaar naa ne combat bii nii pe Serigne Mbaye ngemb waaye leneen la ñuy wax waaye. waaw booy yëmbal maa ngi lay bu baax a baax di la wax euh, bi mooy sa premier grand soo gisee sot bi mu mujjee def da cee am ndam combat bi sa premier grand combat lan ngay wax te instant bii nii comme que waa Ngor la ak waa Yëmbal gis nañ tension te ñu bari ñu ngi naan kii di xeer Ngor moom moo la. avec booy Yëmbal moom moo la xew moo la ëpp rallonge ba pare tey bien vrai que mën nga bëre mais ñu bari mën nañ jox favori. waaw xam nga ñun maaguñu bëre yaakaar naa gudd jaaxaluñu rëy jaaxaluñu ndaama jaaxaluñu ndax dañu mbabat. Kumba Bat yaakaar naa ne boo dajee xeeru ngor sa xol day sedd ndax bu ñuy wax ne an xeeru ngor moo ma sut l'annonce ñëpp nag bàkkoo nañ ko ci xeex bi waaye ci kàttanu borom bi jour ba moom benn sens la ci am daanu benn sens rek la ci am ci combat bi daanu à part sens boobu amaatu ci dara du xeex du bëre foo teg loolu sama gëm-gëm laa ko teg ak li ma liggéey wax benn slogan chaque jour ak boo yëmbal doo xam luy xew yaakaar naa ne grand combat mu doon sama premier grand combat incha allahu rabi dinañ ci wane waat beneen facette beneen boo yëmbal dina ñëwaat ci combat bi allah. laa jàpp di la yóbbante ay loxoom doo fayu fu la jàpp fu dul karaw làmb ci du yàgg na say mbokk univers mi ko waaw boobu damay sant yàlla xeeru ngor laa wax de ci kàttanu borom bi. bu xeexee ma duma ko ci kàttanu borom bi xam nga ñëpp ñoo ngi koy favoriser ne moom moon moo ma daak xeex yaa ni yaakaar naa ne yoon ni yàggul samedi yàggatul moom ma daak xeex wala daak ma xeex samedi incha allahu rabi maak moom ak arbitre bi rek ñooy des ci biir géew bi bi dee moo ma daak xeex nit ñi yéen di ngeen ci teg seen bët loolu jarul commentaire ñu bàyyi la nga tàggoo waaw di sant nag presse bi fi teew ñëpp yaakaar naa xale bu ndaw woote ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw yaakaar naa aw ma seen fay bu fi teew maa ngi lay sant di ñaan seen site yi na doon télé yaakaar naa sama père père Gaston tamit bàyyi déplacement am waa ngeemu naa xam nga loolu aw ma seen fay gis naa taxawaayam ci man gis naa yéene bi ci man mbër yëpp nag la faral faralul boo yëmbal kese ma koy remercier di remercier sama jigéen Fatma Dia moom tamit daf may jàppale ci fànn bépp di sant nag samay kilifa yoo xam ne dañ may ngeem bu di yëkkati xaas di ma ko jox ku ci mel ne Alsane aw ma fayam père Babacar Fall aw ma fayam Babacar Dia borom jaxaay aw ma fayam Père Serigne Mbaye aw ma fayam yaakaar naa di sant képp koo xam ne yaa ngi jàppale boo yëmbal aw ma sa fay gis naa seen taxawaay gis naa seen li ñuy teg ci man ay Issa moom tamit taalibe baay bi aw ma fayam Modou Faye sama grand sama booy yi nga xam ne tey saa yu ma amee combat dootuñ nelaw dootuñ guddeel dootuñ bëccëgal yaakaar naa maa ngi leen di sant di sant nag Modou Mbène li ma defal dafa rëy naa nit ku saa ku am xat-xat la waaye bu bàyyee dara pour def dara ndax boo yëmbal kon aw ma fayam leen rek laa ko deseel mooy indil kon ndam bi ci kàttanu borom bi te loolu ragaluñu loolu di sant ndoy si bu baax a baax a baax a baax waa diaspora bi mention spéciale dañ maa jëndal ay ticket yu bëri aw ma seen fay sama grand Malal Sakho aw ma fayam sama grand sama père père Serigne bay aw ma fayam père Mansour sama grand Mansour moo ma yóbbu ba Gàmbi yoreel ma lépp manqué ma fa dara sama grand El Gueye aw ma fayam waa yëmbal mbooloo nag moom yaakaar naa fii tey man defaluma leen lu tax tey ñuy sonn ci lii ci boo yëmbal ku ci mel ne suñu coach Zil Ousmane bu màgg daan yaakaar naa Babacar Diallo bàyyi yiteem yëpp garga tudd naa nag mbër yi fi nekk ñëpp bu ma limee rek damay juum xam nga sama coach box maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax di wax ne samedi incha allahu rabbi ñu dem jëli ji ndam bi indi ko waa yëmbal ñu bég ragaluñ lool incha allahu rabbi